ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla yi kese barke bi mal xiyaama lakk bar woo xiig sax balo kii de la Sonko oh là là quel de fait celui quel de fait celui quel de fait meilleur tànk gauche de récupérer de la droite oh lolo jox na ko càmmañ nday joor xiig sax balo fëgg na ko ca barrière oh lolo Sonko dugal na drapeau France balo France bi lay bëriñ ci suuf <laughs> loolu mooy xanaa France yi ñibbi leen français yi génne leen réew mi loolu la benn bi nag yow Sonko yow lay waxal benn maire woo na ma nee na ma jaay na ba jeexal bal ya nga yoroon nee na ay drapeau yu bal yu mel noonu barki bi mal xaama la bu la balaa ruus la doon jaay nee na jaay na ba jeexal nafa gaa ngi fees dellu téeméeri junni <laughs> Sonko yow beneen bi am na lu ma jaaxal dégg naa dem nga foire ba laal fam xar ñu fab xar mi ñaf ca oto grillage ba <laughs> xanaa dañ koy tëji barki yombal xaam lakk beneen bi man li ma jaaxal nag wu ñuul ku ko taxaw naa o oh, Sonko oh, o oh, Sonko ak déjjënu gàtt yi buñ demee ba bàyyi may di wax Sonko safurlaa sax ku baax man yaakaar li ma yaakaar nag laa wax waa ñu ñit ña laa dégg ñu naan nag yi Sonko lay wax pitax yu ndaw ay goloog lu ne Sonko laal na ko ca fawaar ba nagu fawaar ba war nañ koo lijjanti foire ba gis naa fa lu ne ba mu des golo ku baax mun loon a dem pàkkaar wut as ngolo su ndaw muy calawitu ngeen tudde ko papa shop jaay ko ah soo gën la dëkk booy bi booy bi xamal lu ma jaaxal ci moom booy papa moom booy papa Twitter rek kaay añ mu ñu tiwitiir kaay reer mu ñu tiwitiir kaay njogonal mu ñu tiwitiir kii man dama jàpp ne leen barke bi man xaam lekk ba suur biñ ko waree ngénte damaa foog ni tubaab bi mu yor tiwitiir moo fa nekk naan tiwitiir tiwitiir tiwitiir teel ma point bo papa Sock yow laay waxaat rek leen Sonko daal jërëjëf maa ngi ñëw nag wuti ay ballon jaay barke bi man xaama man la dox rek laay wër man la dox caleçon yi jaay naa ba jeexal caleçon yi man jaay naa ci ba jeexal ndax Mawla Mour gën moo génn ne Sonko sol na caleçon bu weex ma dem wuti man damaa xam ni nguur si lu mu laar rek mu jar lu mu laal rek gars yi jënd ko felt bi bërki démb laa ko yor di ko jaay jaay naa ko ba jeexal fi mu ne nii xamalu ma desee balu drapeau bula bala rouge Sonko boo liggéey xam lu mu bëgg nga sol ko mba xana mu mel nii enfin jërë ngeen jëf yal na yàlla def ci réew mi jàmm waa bay nu kum ci yéen mu xurujukum guppoo gupp gupp faadaa gupp laa man gupp lëfër lëfër mën mbëkk faal yàlla kese jàmm rek lay wër wasalaam